Assalamualaikum wa rahmatullah kon ñu and ak yeen ci seen nafila guddi tay inshallah di depok altine fukki fan ak yett ci weeru me atum 2019 sëriñ bi dafa wax ni guddi juroom ñettel ga ku ci julli ñaari rakka rakka bu ci ne nga jàng ca faatixa benn yoon ak qul huwa allahu axad fukki yoon ak ñaar ne loolu ku ko def araf wu ci ne des na ko ca bindal tuyaabay jaamu yàlla ak junni at dana mel ni ku leele xeetu sayidina muhammad wépp sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima juróom ñaar fukki at yu mat boole ca màndat leen woddu leen mel na ni it ku goreel junniy jaam te bu ñaanee yàlla mu nangu ko te bu dekkee dana dekkiwaale ak leer te buy jéggi siraat ni ngi melax lay mel te des na ko ramuloo juróom ñaar fukk ñoo xam ni sawara yeyoon na leen kon julli gaa ngoog yal nañ ko suñu borom man loo te ñu def ko te def ko ni mu ko bëggee mu nangul ñu ko fulal ñu ko laqal ñu ko fa yàq eggul bi barkati cheikh ahmad al xadim wasalaatu wasalaam ala rasulillah